partie des sénégalais yi nga xam ne xëy na même gëmul boppam ci jamono jooju tam am na lu mu lu mu am ci Sénégal. mais man mën naa ne contre valeur la parce que dafa taxaw arboré. Ah, ay d'accord débat bi na ngeen am na ci man nga xamante man je partisan de la criminalité. est-ce que est-ce que est-ce man ak yow bokkoon nañ niveau bi ñu doon daw jamono jooju ci bi combat bi taxawee. très bien li c'est ça. c'est bon loolu bokkuñu woon parce que am lu tax. Mhm. bokkuñu woon parce que yow boo mësaan def def euh, Walfadjri mën nga dem def benn man dama daan jóg ñëw ak sama ëmb wax ba bay waaji wasin. gis nañ ko d'accord. di live man foofu la ma affaire bi tolloon. d'accord niveau boobu la ma yóbbu woon. ok yaa may dégg. d'accord.

léegi ñu avancé ci leneen tey Pa Moussa ci yow dooree gis nañ que ni président de la république bu Sénégal def na sa déclaration de patrimoine ñu ngi koy fay 4 millions 859 mille 302 francs CFA. mu nekk loo xam ne conseil constitutionnel moo ko fësal mu nekk dama ko digge woon ci campagne électorale bi noonu la ko amalee ni tey tey en tant que juriste ñi nga gisee tey mu amale ko est-ce que mën nga ñoo dikkal ci déclaration bi ni ko amalee li nga gis fekkee gis nga ko jàpp nga ni lépp yanu na maana également buy génn est-ce que yoonu Sénégal maye na ni président di duggee def déclaration buy génn mu def déclaration ba lépp mën a leer ak régime bi li ñu woote actuellement jëm ci politique bi bon euh, la déclaration de euh, patrimoine mm-hmm. euh, le salaire du président. oui est-ce que xam nga ne les anciens présidents ñoo ko ëpp salaire. lu tax. les anciens présidents ñoom rek am nañ quinze quinze millions. par mois. waaw les anciens présidents. vous parlez de quinze millions. oui. mooy lui il a quatre millions. ñeenti millions va voir les anciens présidents loolu leen am. déclaration de patrimoine da nga gis ne c'est déficitaire. Bachir journaliste nga. Mhm. xëyal bis nga dem jaga ñaaw. nga ne da ngay seeti euh, kër président Diomaye famille am fu ñu nekk. nañu meloon démb ak barki démb noonu lan mel ba tey changé wu dara soppeekuñu rien du tout ñuy dund nañu daan dundee moom ci boppam en tant que inspecteur principal des impôts et domaines xam nga Ousmane Sonko bi inspecteur des impôts et domaines rek la. oui mais moom inspecteur principal des impôts et domaines. moom Diomaye c'est ba ba ba yii yëpp di am euh, nga dem dëkkam. Mhm. fekk simplicité bi muy dundee. Mhm. ak niveau de vie bi mu am. Mhm. déclaration de patrimoine bi mu defoon à la veille de sa sortie de prison nga xam ne voilà un homme vraiment intègre sur le plan euh, financier c'est-à-dire il a des rapports sains avec l'argent loolu lañ bëggoon maanaam yow ñaata at nga dekk Sénégal xamoo li président di fayeeku. <laughs> bari ba jotoo ba léegi kenn daa xam kenn da ko amus xam. Hmm. dama dégg euh, Abdou mbaw mu ni no kii daal wax dëgg yàlla xamul état quoi. Senghor Abdou Diouf Ablaye Wade ba Macky Sall mosoo dégg benn président di wax waxu fonds politique mais kii ñëw xamul état di wax waxu fonds politique ma ne ko tu as la preuve de son intégrité. Mm-hmm. parce que fonds buñ la jox kenn sañu cee wax ñoom dañ koy def lu leen neexee duñ ko mës a waxal kenn. Mm-hmm. moom mu ñëw di ci wax. Mm-hmm. di ci communiquer di ci rendre compte sénégalais yi. ci nu mu ko nar a utiliser ak la mu war a doon. maanaam dañ la doon votel benn huit milliards boo xamante ne bu la neexee dugal ko ci xam ba xam nga ne dara du ko ci fekk. ah bon ah dara du ko ci fekk. benn loi tënku ko daara nee nañu ko amul contrôle kenn du la xool kenn du la jege defal lu la neex. ok moo tax mu ne ko tungaan ci benn mois dem toog. <laughs> parce que ñoom ñoo ko ko wax ni mhm. alors donc au vu de ça nit ki ñëw jox la non seulement une déclaration de patrimoine très différent de la déclaration du président Macky Sall yéen a ngi fàttaliku. 8 mhm. millions ah ah. ok. 8 milliards 8 milliards. Mhm. te xam nga lan mooy incongruité bi dans cette affaire. Mhm. Macky Sall bi muy dem loo wax deful déclaration de patrimoine. c'est ça loolu laa lay laaj. est-ce que président génn. ni mu nekkee obligation bi ngay dugg. Mhm. non nooy la waroon nekkee obligation bi ngay génn. lan moo tax nekku ko léegi. d'abord parce que n'y a pas de volonté politique dans ce sens. parce que def déclaration de patrimoine ba ngay dugg. Mhm. te defoo ko bi ngay génn loolu amul sens. non sens la. oui donc kon loi ni mu ko ni mu ko ko waxee ni mu ko ko exiger. entrée ak sortie la. ok personne kenn ci ñoom musul def sortie et bu ñu ko defee sax maa ngi gis Mansour Faye di waaxu di wuti OFNAC di defi déclaration de patrimoine waaye man na ma xamul Mansour Faye bu yeewu dem def la defi déclaration de patrimoine naka la fa dajee par hasard ak Ngoné Saliou mu war a de gaare fële otoom waaxut loolu yëpp pour ñu koy filmer pour dem ne maa ngi defi déclaration de patrimoine est-ce que xam nga ne même si sa déclaration de pat si sa euh, si son patrimoine est exact li mhm. mu duggee woon loolu la génnee mhm. taxulaa jóg mhm. bu la neexee dina càcc nga def ko beneen tuuti ok du feeñ ci sa déclaration de patrimoine parce que nekkul ci sa patrimoine peut-être non voilà. donc ça ne veut rien dire. Mhm. mais pour un président c'est une obligation à l'entrée comme à la sortie parce que li li ñuy xool dëgg-dëgg mooy diggante bi ngay gérer lan moo ci yokk waaw boo ko deful à la sortie ban sens la. d' accord mais yaa ngi wax président yu njëkk yi 15 millions lañ doon am laataa may dem ci Coro. les anciens kii di laal waaw di laal 4 millions. lu ko wàññi moo ko wàññi wala moo ko sànni boppam moo bàyyi boppam xaalis. mais da a dégg kenn ku la wax président bu leen taalaay fee musul am. mais ku wàññi ku wàññi moo ko def nii. ah mu moo te moo koy tënkee nii. ah moo ko dafa war a wax ak anciens yi. xam nga président Macky Sall jëloon na benn décret. ne anciens ministres yi dañ leen di fay. oui président na ko. oui da ko na abrogé waat lépp luy législation ci jëm ci ancien président. nangu naa ah. ñu nangu naa ñu sargal leen les anciens président eh, nangu naa ñu mettre leen dans des conditions yu normal mais lu bu boobaal da nga ciy boole waale du ñu génn réew mi. toog ci rëkk bi di fi fay fisc mais yow boo pare dem nga Paris dem nga Versailles dem nga Maroc. ak 9 millions. ba pare nekk un employé <laughs> un employé c'est-à-dire maanaam Macron mooy sa njaatige moo lay def loo ngay def avec tous yi nga yor. chaque semaine nga doon présider le conseil national de sécurité xam tous les renseignements. alors qu'on t'a mis au l'abri à l'abri du besoin. loolu c'est de la haute trahison. Ah mais naka nga mënee dëkk jox la toutes les responsabilités yu mu jox Macky Sall directeur directeur général ministre premier ministre. Ah, président assemblée nationale président de la république. nga yore tous les renseignements du Sénégal di présider au destin des Sénégalais pendant douze ans génn dem dooni keneen c'est correct kon kon alors Thioro. il ne pouvait pas avoir euh, gis nga bu de moom moom moom. gis naa ko fakkiir la moom wax dëgg yàlla. déet bu ko defee tey du nga daw. ah kële kële moom yor ah, na. alors <laughs> gëm naa ne bu defee déclaration de patrimoine famille moo ëpp budget loolu bëri na alors Thioro seen président bi na mu ko amaloon ci campagne bi la ko firndeel ni ki tey jii def na sa déclaration de patrimoine li mu am amam mais gis nañ kañ wax dëgg yàlla ñun ak moom ñoo yem daanaka yoruñu faqiir lañ koy waxee ñu kafee ko noonu tey boo gisee lu ni mel ni mu ko waxee woon mu amale ko noonu mel ni benn direction bu mu jàpp bàyyi ci benn yoon maanaam jubal ak jubanti tout ban sentiment nga ci am. fierté. Hmm. fierté la ñuy wax. Hmm. vraiment bi ma ko gisee feexte la am. Hmm. comme ni ma amee woon feexte ci li Pape Moussa di wax léegi ci ba journaliste yi dawee ba njaga ñaaw hmm. dem ci ëttu baayu le président Bassirou Diomaye Faye dem ci ëttu. papaam. gis ses parents. gis ñi nga xam ne ni ñoom ñooy sa famille. ñu jël leen. wan leen askanu Sénégal. gis nga man boobu bu ma ko waxee rek jamono jooju laa ne. suñu sukkandikoo ci lii rek bu fekkee sénégalais yi man li may xam ci grand place yeeg ci rootukaay yeeg ci bus yeeg yeneen mu ngi ci ñoom. Mhm. ci lii rek Bassirou Diomaye Faye mën na ci mën nañ ci sukkandiku ne day doon président. Mhm. mais gis nga ci déclaration de patrimoine bi. Mhm. mën nañ cee sukkandiku ne dina am réussite fii ak fin wu mandat am xam nga lu tax. jom fu la ngor mooy yor Sénégal fi mu nekk nii mais bu ci boolee jub jubal ak jubbanti. tàmbalee ko ci boppam. Sénégal day gën a jub. 4 millions bariwul de. 4 millions bariwul. ab hmm. faqiir la ñu bëggoon mu jiite Sénégal comme ni nga ko waxee. Hmm. xam nga kan lañu bëgg mu jiite Sénégal. Hmm. mooy kii ko jiite tey. xam nga dañ doon wax naan ay 1998 xawma 92 sax ca ba may juddu. la ñu wax ne président Abdou Diouf xamul woon. ndax mbuusu. meew meew. juróom lay jar juróom lay jar xamu ko. Mm-hmm. mais Bassirou Diomaye fay xam na ni mbuusu suukar fukk am na. Ah, ak tey boo ko ko laajoon xam na ko. Mm-hmm. xam na ni ñi gën a ñàkk ci senegal ñi seen loxo jotu seen gannaaw. Mm-hmm. bu guddee amuñu mbuusu meew bu ñu def ci cere. jënd ko ci maire bi cent franc kooku xam na ko. Bassirou Diomaye Faye moomu xam na ni bu guddee. kër yu bari bari bari cin du fa tàkk wala sax bu bëccëgee bala ñu koo taal dañ koy dañ dañuy daw bay bëgg a dee. góor jigéen pour taal ko. kooku tey laa ne seen une national nationale pour mu jiite askanu Sénégal kooku tey moo xam suñu ay valeur moom moo xam ñàkk gi ñuy dund moo tax tey mu def déclaration de patrimoine am ba pare en tant que président de la république nga day téq 15 millions yi nga xam ni. Mm-hmm. Macky da ko am pendant 12 ans. toftal ci. trois mois xaw ma quatre mois yi muy am neuf millions chaque mois ci sunu sunu sunu sunu gafaka ñun sénégalais yi nga xam ne tey ñun ñoo bëgg a faju mënuñu ko mhm. ñun sénégalais yi nga xam ne ñun ñooy xëy di gis sunu ay doom ñuy dugg ci waax yi mhm. di faatu mhm. ñun sénégalais yi nga xam ne tey ji sunu doom yi ñooy taxawaaru ci mbedd mi parce que njàng meek njàngale ma doxul ñun sénégalais yi nga xam ne ay feebar yu ndaw ndawaan ñun lay rey parce que sunu plateau médical yi dafa suufe tey sunu président de la république nee na loolu lépp privilège yooyu président yooyu amoon pendant quatre présidents moom cinquième bi da koy dindi ba mu set